mbokk xew-xew bu mag am na le 19 novembre ca arène nationale ñu ànd ci ak fallu Ndiaye le number one lamb yépp namm ko ndax bu tëggee combat yi neex yi muy indil amateur yi Giro la jël daal di koy boole ak Ndiaye rek i tafaatin combat bi fallu Ndiaye leen damay dem jëri ji Bekaay mel ni mi du xam ngeen ko daal di koy boole ak alliance biram ndaanaan mbokk yi Fallou Ndiaye ak waa Ndiaye production ku leen xam-xam leen ci combat yu neex ak bés bu taaru moo tax bésu la 19 ku fa tegul sax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 di gërëm sama ñaari waajur mhm. di sant waa parcelle yëpp di sant sama mbokk gànjal gànjal waalo waalo yi sama mbokk séeréer yi mhm. di nuyu baax baax fépp séeréer nekk maa ngi lay sant di la gërëm gànjal gànjal waalo waalo yi mhm. njaamun njaamun yi di nuyu waat waa parcelle di nuyu sama gaay ma àndal ku ci mel ne Wari loxo ak Père Mbar ak sama patron Papa Guèye ak sama patron Mame Góor Père Mbar Tine Père Manga De Père Ba waaw di leen sant bu baax di sant waa jàmbaar Wrestling Academy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 luy loolu. bokk ngeen bokkuñu écrit nga ah. xam nga rek. Mhm. ni ku nekk nit la. Mhm. bokk woon ci ñoo xam ne. Mhm. bàyyi naa xel lamb dina boole ñoom. buñ ko waxee loo bett la. finalement buñ ko waxee tak dama la bëri sama grand ñoom papa Guèye yi wax si. ne ma lamb la man leen lambal nag lamb la nañ lamb. te dama ji li ci am lépp. nekk ci lamb ñu def ko ci lamb. maanaam boo ne bàyyi woon xel ak bëre ak moom sa veut dire que raw la. wala dafa nekkul woon sa morom wala ke wala yow yaa ko raw wala qu'est-ce qu'il y ma ko raw. kon moom moo la raw nga ja a jaaw parce que moom mujjut ci làmb. ok ci làmb mais bàyyiwuma woon xel ni dinaa bëre ak li may wax nag dégg-dégg lay laaj. ah ñun nag dañoo lu leer. waaw relation ngeen am da wala lan. non relation bi relation bi leen romb niyoonte mu bëgg ma bëgg ko. waaw mais muy mbër ngay mbër nga. mu xel ni dinaa bëri moom foofu nag. mais loolu nag mënu ma cee xóotal fa a yem. kon kay yow da nga xamante moom ci leneen comme lamb ji taxaw na waaw ku ma respecté la mais lamb bëgg ñu lamb ko daa am na loo seq ak Modou Dia te dinu ko te dinu ko nëb ni mu waxee daa mel ni bàyyi kon xel bëri ak yow donte yéen a ngi daje nee naa nag xaritoo la wala raw raw goo ko raw la wala raw raw gum la raw mais nangu cee leeral xanaa yow mën cee leeral du du xaritoo sax parce que xarit moo xam naa ne dafa jafe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 amul looy sikki sàkk si ñoom lu nga xam ne ñii dañuy liggéey donc man loolu lépp nangul nàkk mais gis nga Babacar daan ak daanu mbiru suñu borom la te damay ñaan yàlla jox ma ndam si kaw doole jeeg bëre bi kan moo ko ëppale ci yéen ñaar wala surtout bëre bi sax non yeggaguñu foofu parce que tey lii état man lii sama état mais côté bëre laa wax quoi non moom mën na bëre mën na lépp jàmbaar la champion bu mag ko ëppale bëre nangul naa ko moom mën na bëre daal mais man moom nanguwuma ku ma jamonoonteel nga daa xama bëre kon daam dàqu bari noon non wax waxuma la moom ku ma jamonoonteel rek. nanguwul ma kon moom daam ci la bokk. mais moom nangul naa ka ndaanaanam nangul naa ka ne ndaanaan bu lu ñu koy bàkkee c'est combat mu indi kii bu bees. bu bees waaw day daa ji paquet de. waaw daam waa ji ne mu lay njëkk a dóor. waaw moo tax man la comme làmb la nañu làmb. waaw man de moom la la loolu mi xaar de. waaw a tege ne. parce que man bu ma demee ba ba jël xaalis ba lekk dama ko gis mu ko lekkee mu lew leen jox dégg na. waaw waa nañ trop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 après ci géew bi lañ koy wane lutte pure ak lutte pure et dure lu may wax. kon su ma la déggee yaa ko dàq bëre. si géew bi laa kay tekkee. mais yaa ko dàq bëre kon. bëre nga wax bëre. waaw ah. man damay jàng mënuguma. waaw ah, mais mu jëmi yaa ak moom. moom nee na nanguwul ko mu jamonoon teel nga gën ko nekk ndaana. man damay jàng mënuguma. waaw ah. waaye li ma mënugum li ma li samay naataango. kenn mënu ko ci. ba ci moom mi li ma ko ci. mais mu jëmi mënut li nga mën. déggoo li ma la wax samay naataango. waaw mais doo tudd turu Modou maa ngi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 waaw suñu borom la leer subhaanahu wa taala incha allah waaw mais man lépp luy fulla ak fayda ak ni ma xamee mhm. war bi suulee ma toj sama leen dox dox sa kaw du ma xaar mbër doxaat mu jëm yi du ma jëkk jël mbër avertissement ci lamb ci géew moo caat metti woon na de man du ma man du ma jëkk jël mbër avertissement ci géew hmm. déedéet xalaatuma ko te yowee ma noonu waa parcelle hmm. déedéet aca kon gars yi Modou dégg nga de nee na moom bëre lit pur et dur moom bokkul yow lit pur kese nga am moom pur et dur ba dayo waaw comme am naa lutte pure baax na man daal Babacar. man alhamdulilah quoi. comme bon daaw ñëwoon naa année bële daanu bëriwaatu ma ñëwaan ah, am naa combat xam nga xëy na wax ji nii dafa neex pour jaay kii bi mais am na fu ma làmba bi toll quoi moom fu mu moom fu mu koy yegg rek man dépassé naa étape boobu quoi kon donc xam nga lan moo fi des hmm. nañu ñaanalante rek mu dem liggéey ma dem liggéey xam nga jour suñu borom mi am ndam hmm. que moom dina ma teg lu metti yàlla yàlla na ma teg lu metti ba ba pare ma daan jël naa lu metti li dinaa ko tegoo mais ndam li na ma ko suñu borom jox ko te ku liggéeyul doo ko am yàlla laa ko ñaan ah. te man damay liggéey mu daa liggéeyul wóoruma de yow nga ne yaa ngi koy rob ñii day dëgg la man ndam yàlla moo ko yor waaw ku liggéeyul du ko am parce que tamit yàlla yàlla yàlla yaa na bay si tool hmm? yàlla yaa na bay si waaw tefes gi ñoo bokk tefes gi. Hmm. ñoo bokk tefes gi. yéen a bokk tefes gi. mbokk yi xew-xew bu mag am na le 19 novembre ca arène nationale ñu ànd ci ak Fallou Ndiaye le number one lamb yépp namm ko ndax bu tëggee combat yi neex yi muy indil amateur yi Giro la jël daal di koy boole ak Ndiaye Tine rek i tafaatin combat spécial bi Fallou Ndiaye leen damay dem jëri ji tubles daal di koy boole ak Ama bu saameel mbokk yi fallu Ndiaye ak waaye Ndiaye production ku leen xam-xam leen ci combat yu neex ak bés bu taaru moo tax bésu le ku fa tegul sa tànk yërëm na